asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, dañoo bëggoon indi suñu xalaat rek ci le juge Moustapha Fall euh, ñu del di ko ziyaara di ko nuyu del di ko sargal réew mi nag dafa nekk situation boo xam ne jombul nii nga ko mën a doxale waaye man day bu doon man duma ko doxale nii dama fay toog lii dëgg ma dëggal ko dool faa jóge ndax bi nga amee courage ba xool kayit yi euh, benn baaxu walla muy dossier bu vide foofa laay toog xam xamal leen dossier bu vide du jaar ci tribunal bi ma di ko fekke waroon nga faa toog jox opportunité ak courage ñi xam ne dañ faa daje lépp doon ab kompolo yow nga dem ba découvrir ko waroo woon a gedd yi dem déedéet fa laay toog falaay toog ba këyit yi réew mépp bokk xam ne dossier bu dara nekkul la lu mel noonu lañ soxla c'est du patriotisme waaye li nga def dafa mel ne danga xaw a daw say responsabilité pour man noonu laa ko gisee jombul na yow neneen koo ko gisee waaye li ma xalaat li ma xalaat man bu fekkee ne tànn nañ may ab juge ma dugg toog ci taabal ci samay nawle jàkkaarloog man ñi ma nome di ma déglu bu ma xoolee dossier bu dossier bu vide du ma dem du ma dem mukk falaay toog falaay toog bu lépp sotti ma génn sama rapport boo rek lu ñuy la ma taxaw xeex ko ne dossier bu vide bi kenn du ko jugé ci tribunal bi man juge la trouvé naa xam ne dossier bi dara newu ci su ma geddee bàyyi dem dossier bi day continuer da nga faroon toog xeex ba siiwal ko wane ne bi baaxut nu ñëpp ñu bokk gëmandoo bu ko defee jàmm la ñooy boo fa toogoon tey rendez-vous bii du am boo fa toogoon da ngay jox appétit avocat yi boo fa toogoon da ngay décourager Adji Sarr mi nga xam ne dafa ànd ak Macky Sall samp dosi yoo xam ne bu bon la bu bon la boo fa toogoon nag da sigil capitaine Touré da nga bu baax a baax ndax homme de loi la boo xam ne ci liggéeyam la nekkoon dosi bu bon bii bu bon bi tax nu dàq ko kon waroon a takk say bagage dem dama fay toog ba mu leer nañ waaw lañ waxaale woon ak na nga ko waxee woon nga taxaw défendre dossier bi comme dossier bu bon kon bu ko defee woon ba tey defe naa ne mbir mi sotti na waaye kenn ku nekk sa xalaat kenn ku nekk sa fit kenn ku nekk say pexe man de bu doon man Ousmane Dramé du ma wàcc taabal ji mukk te àdduna bépp xamuñu ne dossier bi baaxut baaxul du ma gedd mukk ci àdduna danaa fa toog ngir yàlla danaa fa toog ngir bakkan yi faatu woon danaa fa toog ngir Ousmane Sonko bii di jullit jotewul kenn dara ñu taqal ko ay tuuma danaa fa toog ngir Macky Sall mi forcé troisième mandat te ko fenn danaa fa toog ngir yàlla danaa fa toog ngir wax dëgg waaye du ma daw waa ciy dem du ma ko def ba ma xamee ni dafa widd dafa vide danaa taxaw man pas ci position état bi pas ci position ñi xuloo ko xeex mais dossier bu mel ni dinaa fa taxaw ba kenn dootu ko duggool ci tribunalu senegal waaw mais boo jëlee say bagage dem a ah, boo liggéey day amaat man de noonu laa ko gisee tey jéggul bu baax nag a ah, dañuy bañ a sor ci gëstu bi rek dossier bi gisoon nga ko gisoon nga dossier bi gisoon nga ko da ñëw ba tribunal kay mbir yi ëpp la doole nga wax waaye dossier doo ko sujet fe dajeeg moom ci tribunal bi déedéet dossier yoroon ko lu yàgg gëstu ko lu yàgg kon xamoon nga ne dossier bi baaxut lu la indi tribunal lu la indi ba nga xoolee dossier bi baaxut nga ñeme toog ci taabal ji danga waroon a taxaw nag défendre bon gi dossier bi bon bu ko defee jàmm ne ñooy waaye dossier bi moom xamee woo ne dafa vide ci biir tribunal bi ndax yor nga ko lu yàgg gis ko lu yàgg ñu door la joxoñ pour nga àtte ko kon ñoo ngi lay ziar te jégglu yàlla na yàlla suturaal yàlla na suturaal te indi ndam ci réew mi Ousmane Sonko yàlla bu ko bu ko bu lu bon dal pexe yëpp yàlla na mooy Macky Sall mii fi nekk lëjal nu yàlla fi jógee te bakkan du rot yéen te da ngeen di atte fàttali leen ne yàlla rek ay atte fàttaliku leen ne lépp lu ngeen àtte da ngeen ko àttewaat ëllëg kon man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience yal na yàlla suturaal yal na yàlla suturaal indi jàmm ci réew mi dama ne Macky Sall ak armée française ak inspecteur yal nañ génn réew mi te bakkan du rot